gàllankoor mais buur géwél buur ngi am envie mbéj la Modou ak Ama ban combat di wax amul lig nekk ci biir kaso bi combat bi du yegg son fils lu mu mën mën mën lu mu aay aay aay lu mu la sa bay kenn du ko nëbb danc jant bi ngay tax tal mbaay ak rumbaay ak kay ma sabar ak kaay ma deug même wini ak lu mu jambar jambar jambar jambar fi ton ni a 90% de son temps leppam ci bayam la koy concentré parce que moy taw bay taw taaw mooy bu don xex la ñu dem xexi bu don jeli yat la ñu dem jeli yat waye du lolou justice moo am ci réew mi dañuy sàkku dañuy sakku di ñaan ci président de la république ngir yalla ak yonent bi mu mu mu gracier ko mën nako c'est le chef suprême des armées mën nako ko président Macky Sall mën nako te gatt gatt gatt Luc Nicolas liggéeyal nako ci luma ma man waaw liggéeyal nako ko nako xam nga nu mu ko da koo jàppale ba canaliser jeunesse bi te ku canaliser làmb canaliser jeunesse bi canaliser nga réew mi nga kaa ñu waxante dëgg jamono bi nga xamante ne nii téyeguñu lig ñu ko laay Modou Lo ak Ama Baldé taxaw presse bi suu gras borom gerte yi suu gras borom madd yi sous gras képp koo romb ci réew mi loolu lay wax Modou Lo Ama Baldé Modou Lo Ama Baldé jàpp nañu lig ñëpp ñu woo combat bi tombewul à l'eau heure bi lan lañ doon wax tey Ama Baldé nekk na roi des arènes mbaa Modou Lo euh, jëlaat na ko conservé na ko kan la ñuy boole kii kan la ñuy boole kii kan la ñuy boole il a la lutte Ama Baldé ak Modou Lo lañu amoon Papa Sow ak Siteu moom moo sauvé woon lamb ji sinon ñëpp jàppoon nañ lamb ji dee na nañ leen waxante dëgg dëgg kenn du ko yërëm ñëpp looloo tax man ma daw ca rédaction ya delluwaat éthique ak déontologie delluwaat di def sama revue de presse delluwaat di def samay journal damaa ragal parce que kat su ma amalul euh, njëriñ Youssou Ndour daf may dàq nañ wax lu leer yéen da ngeen di contexte gis naa leen ci fecckat yeeg ci waykat yeeg ci dëggkat yeeg bu lamb amoon du ngeen ca dem nañ leen waxante dëgg bu actualité lamb amoon du ngeen ca dem wala bok du da ngeen koy relégué au second plan parce que du sen domaine domaine bi ñuy dund à 100% moy lamb, lamb kessé lamb rek lamb dong ba taxna ma jog man tamit ah dal né comme Youssou Ndour bi may jëli daf ma né dafa bëgg lu redresser lamb futur média ma nek fa nek fa nek fa nek fa pandémie am suma ma demul journal RFM demuma defi revue de presse TFM daf may dàq parce que du ma ko amul njëriñ te du ma nangu man mii Lamine Samb di toog di croiser les bras fenn maa ñu may fay waaw manque à gagner amul foofu ay lamb bu lamb amee ma teg fi rédaction yi maa la wax loolu ah waaw waaw